une visite de proximité à Pikine. asalaamaaleykum mbokki Sénégal li ñu gis fii nag tey mooy li war a am mooy fi Sénégal war a jëm maanaam loo xam ni lépp lu bari lu ñuy dem jënd bitim réew boo jëlee chaîne de valeur textile. dafa commencé ci coton ñëw ci fil dem ci vêtement bu ñuy sol waaye mu mën a def ay meubles mën a def leneen fii li tax ñu ñëw visiter ko tey pour ma wane exemple bi ni mën naa nekk ci réew mi. mooy coton bi ñuy béy fii ci réew mi bokk na ci coton yi gën a baax ci àddina bi bañ koy jënd fii di ko yóbbu ay Égypte ak di ko yóbbu feneen te pourtant de Égypte boobu bu ñu jëlee suñu coton yóbbu ko ñun foofu la ñuy jëlee ji fil indiwaat ko fii pour defar leneen moo tax ñu nii boo bëggee am souveraineté économique moom sa bopp ci côté boobu da ngay defar loo xam ni fii ngay béyee coton bi fii nga koy transformé ci usines yi entreprise yu mel nii nga xam ne dañuy def lu ñuy wax fédérer les savoirs traditionnels et les savoirs artisanaux maanaam ñii di def tissage ah, seru njaago mu ngi fii ñii koy yóbbu wàccee ko defar ci ay meuble ak ay chaise ñu ngi fii ñi nga xam ni ñu ngi koy def feneen di ko yóbbu bitim réew te entreprise bi dana jaayi bitim réew dana jaayi ci marché yu mag yëpp donc loolu la ñu leen di bëgg wax ni incha allah bu ñu yàlla defee ba ñu am changement bi ak projet bii nga xam ne moom la ñu yëkkati gaaral ko sénégalais yi danañu fexe ba sénégalais yi liggéey ci biir réew mi créer emploi de petite et moyenne entreprise ci lu indi artisanat bi ba mu am doole formaliser ko fii ëpp na 100 emplois boo xam ne ku ci nekk yaa ngi fayeeku am nga protection sociale am nga assurance am nga lépp. waaw fii nag dañu ñëwaat euh, visiter ji beneen euh, unité industrielle. ni ECOTAF bu yàgg bi ngeen yàgg dégg te mu wone euh, exemple désindustrialisation wu Sénégal maanaam amoon nañu ay industrie mais yëpp tëj na te am réew boo amul ay industrie doo créer emploi xale yi du mën a liggéey. fii nag li tax mu am solo mooy li ngeen gis sama ginnaaw. coton bi Sénégal gii lañ koy bayee mais ñoom góor góorgóorlu nañu fii ba nga xam ni am nañu ay machine yu ñuy defaree fil bu jógee ci coton Sénégal coton bio sax ñu ngi koy defar coton boobu nag ñoo ngi ciy defar ay tissus yu de grande qualité yoo xam ne mën na am ay drap mën na am ay yére mën nañu defar leneen lii ñu exporté ci ko à l'étranger pour am ci ay koom-koom waaye leneen yëpp ñu jël ko ci marché sénégalais bi lépp luy xam ne dañ koy defar mu di ay textile ñu soxla ko ci administration publique yi soxla ko ci uniforme scolaire yi xale yi di sol pour jàngi soxla ko ci armée bi soxla ko ci lépp loo xam ne dañ koy soxla muy jóge ci budget ñu koy jënd dinañu am ay projet ak ay programme yoo xam ni dootuñu ko jéggaani ay industrie Sénégal ñoo koy def béy fii ci réew mi transformer ko ci réew mi am autosuffisance ak souveraineté bi ñu leen di wax lii moo koy indi am liggéey ci biir réew mi xale yi dootuñu jël gaal di dem ñiy def marchand ci mbedd yi di jaay yu ndaw dootuñu soxla di ko def parce que dafa nekk précarité dañu leen di employé ci ay usines di leen foo jox loo xam ne lii dinañ am protection sociale am assurance am lépp di mën a am salaire yu baax nga xam ne mooy lii cëslaayu projet bi ci souverainisme te ñu bokk ko ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay projet boobu la ñu bëgg mu arrivé au pouvoir incha allah.